Setsima TV l'actualité en temps réel dans la la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor. xool ngeen beneen l dawal bu xamante ni bii borom oto bi dawal moo indi problème bii. dawal bu xamante bii borom bi oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génnal dem balaa balaa balaa feexal génnal dem génnal ba fële génnal ba fële ñu dem génn ji nii dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii moo indi accident bii xamante bu dawal mi noonu xool bi li dawal pour L200 bi xool li muy dawale xool dawal xool xool dawal lu xamante mu ngi dawal xool xool yaa ngi gis waaw ah. voilà gis nga gis ngeen dawal bu xamante bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii dawal bu xamante bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génn dem balaa balaa balaa fi yàqat génn génneel ba fële génneel ba fële ñu dem génn ji nii dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bi kii moo indi accident bi ah. xamadi dawal bu xamadi doon dawal ñu noonu xool leen beneen bi li muy dawal pour l bi xool ni muy dawale muy dawale xool xool dawal bu xamadi ni dawal xool xool yaa ngi gis ah. waaw bu xamadi bi borom oto bi dawal moo indi problème dawal bu xamadi bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama gën a gën a dem a gën a dofale gën a dofale ñu dem gën a ji nii dawal bu xamadi bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii xamadi dawal bu xamadi doon dawal bi li muy dawal xool L200 bi xool li muy dawale xool xool ni mu dawal xool xool dawal lu xamante ni mu dawal xool xool yaa ngi gis waaw ah. voilà gis nga gis ngeen dawal bu xamante bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii dawal bu xamante bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génnal dem balaa balaa balaa feexal génnal dem génnal ba fële génnal ba fële ñu dem génn ci nii dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident ah. temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér